sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax ne inna alxalaala naka lu dagan bayinun aji leer la wa inna alxaraama naka lu xaraam bayinun aji leer la wa baynahuma nekk na seen diggante umuurun ay mbir mushtabihaat yu du ay lënt xam ne laa yaalamuhunna du leen xam kasirun lu bari min annaas ci nit ñi faman taqaaku wattandiku ashubuhaat yu lënt yooyu فقد استبرأ سبنا لدينه دينهم وعرضه أكب درم ومن وقع كدل في الشبهات يلمتي وقع مدل في الحرام كل حرام كراعي من أجل سم يرعى كودنا سم حول الحماة لور كراعي البور يوشي كودنا خو أن يرتع مفار فيه جمع على يقل وإن لكل ملك نكن بور حمان كراعي laa yëgal wa inna ximallaahi naka kaaraangeel yàlla maxaarimu mooy yamu araamal alaa yëgal wa inna fil jasadi nekk nekk na ci yaram wa mu doxatan aw dog ida salaxat ni yéwén na salaxa mu yéwén al jasadu yaram wa kulluhu léppam wa ida fasadat ni mu yàqu na fasada mu yàqu al jasadu yaram wa kulluhu léppam ba tey alaa yëgal wa hiya moom al qalb mooy xol xadis bi an Nu'man ibnu Bachir ñu koy dàkkantele Abu Abdillah mu ne dégg naa yonent bi wax ne yàlla dafa am lu mu daganal lewel ko mu leer nañ ñëpp xam ko ñu bari xam ko am lu mu xaraamal ba tey mu fees leer ñëpp xam ko waaye nag da ca am yoo xam ne ay mbir yoo xam ne daa lënt nga xam ne ñu baree bari moom duñu ko xam ñu néew daal ci nit ñi ñoo koy xam yooyu ya, nag la ca baax mooy eh, watandiku ko xam daal leeru la ba xam dara daa dem ci yow leeru la ba xam lu dagan la baalu aram da nga koy watandiku rek moo tax mu ne ku watandiku yulant yooyu eh. sàmm na diggam ak borom ci diine eh. sàmm na diine diineem ci diggam ak boromam sàmm na ab jaram ci diggam ak nit ñi koo xam ne day dugg ci yu lënt yooyu def wët ñu ko rek dana xaababal dana jàll ba ca yu xaraam ya waqaa fil xaraam du ko misaale bu fekkoon ab buur dafa ñàkk benn barab aar ko ne fii bu fa kenn dugg bu fa kenn for am ko yor ab ci wetu foofu di fa dana jàll ci la buur bu ma gis kenn kenn for lay misaale koo xam ne yu lënt yooyu wëttandiku ko dana jàll ci lu xaraam mu teg ci nag jàppal ne bur bu ne amna na lu muy aar yow moo koy gis kenn ko kenn jégué yalla nak bur la bo xam ne ar ne bu ma ko gis kenn bu ko kenn jégué moy yow mu seet ba haramal ko su borom dal yow mu seet ba haramal ko yoy mooy yi nga xam ne moom la ar ne bu bu ma ko gis kenn bu ko kenn jégué yi lent yoy nak bu fekkee nit ki da cee dugg di ko def bu wëtu wëtu dana jàll ci haram yi te yu xaraam suñu borom tëkku na ci ay koy def kon daal ab ni mi def moy bu ko wóor ne dagan na mom man na def bu ko wóor ne haram na musari ko lu lënd ci moom lan ci mom mu laaj ko ko xamuti dar daal koy sori mo gëna a ndax ñu ngi jangale bu ko jégué rek man na jall ci lu haram suñu borom mom day watandi ko loolu haram mu tek ci ne yaram wi amna morsa aw dog woo xam ne bu baaxee rek yaram yëpp daal di marché baax waaye dog woowu morso boobu bu yàqoo rek yaram yëpp daal di marché loo yàqu loolu nag mooy ab xol fekk ñu ci jumbe xol bi noonu rek waaye secret ci yàlla def ba nga xam ne mooy baax ak bon mooy yëwén ñàkk yëwén loolu lay jublu nit nag zaahir rek lañ xam kenn ay jëfam yëwén ay waxam yëwén ñu jàpp na kon xol ba yëwén ظاهر ديو نا يالا خام بيرك دغ دغ غيسي كين اي جيفم صفان نياو اي واخينا نياو ني جاب نكون خول با نياو كون نيت دي فخ دي فخ ديفار اب خولم دا خول بو بيوي ني رك دانا اي جيفم مانا يوين رافيت اي واخ دا دي رافيت كون جوليت بي لو نانت تي ياو رك نانكو لاج با خامني با خام dagan na wala araam na boo ci xamul dara nga bañ koo def sori ko